mu ni ko maîtrise spirituelle nag mooy li nekk sa rox nga yëg a xay bu ba noppi xam li xew lan la moo tax mu ni ko bu may déclarer rek du ma déclarer tey mais damay déclarer ca Adam alayhi ba ba ñuy war buftu ba sëriñ Babacar si pour nit ñi dégg ko moo tax mu ni ko xutbul wujudi allazi abda wilayatahu rabbi wa adamu bayna al ma'i mbokk ñu dem ba yàgg ñu ne ah la nga wax rëy na di mu ni dama xam ni seen xalaat ci aadam la yam ci aadam la yam bu ñu ne wàllu nit ku ci mag ngeen ni maam aadam alayhi waaye fekk na moom rek buñ ko misaalee ni kii bi muy xam wilaaya bi nekk ci moom boobu aadam mi ngi ci diggante ndox ak ban nga war a am dégg-dégg lu jar di dégg la loolu sëriñ Babacar si wax xutbul wujudi lazi abdu wilayatahu rabbi wa aadamu baynal maa'i wa tiin mu ñu nit ñi bu ñuy lim ci nit ñu mag dañuy wax maam aadam ma ni kon bu ñu leen bëggee tënkal Mawlaay Cheikh Ahmadu Tijaani dañuy wax ni ba muy yëg wilaayam aadam mi ngi ci diggante loxo ban kon nga laaj moom ba muy yëg wilaayam ci ban béréb la nekkoon ndax moment boobu aadama alayhi salaam mi ngi ci mondo xayba bi yàlla bindee Adam alayhi salaam mu nekk ci diggante ndox nekk ci diggante ban mi ngi ci monde xay bi ndax boobu yàlla dafa bëggoon indi la matière ak l'antimatière wa ja'alna min al-ma'i kulli shay'in hayy xanaa xamuloo loolu antimatière la mais antimatière boobu dootul du woon ndox mii ñu xam ñun c'était la lumière bi profet Mohammed paix et salut lumière yonent bi la looloo tax bi yàlla jëlee lumière yonent bi def ko ci sayidina Adam mu waxoon malaayika yi nañ ko sujjuutal sujjuut bi doo du woon pour Adam alayhi salaam pour lumière yonent bi sallallahu alayhi wa la léegi muy diggante matière bi di ban bi ak l'anti matière di woon loolu ñu jàppoon ni ndox la te fekk lumière bi prophète la Adam nekk ci diggante bi Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaani Chérif nekk ci biir lumière yu yonent bi sallallahu alayhi ci biir lumière boobu nag ca la mooy xatmiyatul maktum ca la yëgee mooy barzakul maktum ca la yëgee ni cër yëpp yàlla di langi ci diggante xat mi ak xat bi di tenir nii boobu fekk na jëlaguñu lumière yu yonent bi branché ko Adam alayhi salaam sëriñ Babacar ni xutbul wujudi la si abdu wilayatahu rabbi wa aadam fa inna allaha yutiin boobu moom xutbaa yoom ñëw na xaqiqaam mooy mi ngi ci biir lumière yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te lumière bi moo war a ban bi ñu dee aadam ban bi tàkk ban bi mën a am rox ban bi mën a doon nit ba ban bi mën jur ay génération mais lumière yonent bi moo doon prise bi ko war a branché ndax récepteur bi lumière yàlla la récepteur bi lumière u yàlla la prise bi moo doon lumière u yonent bi ca la mu waroon branché wu mooy adama alayhi salaam jëmm ji moo tax Cheikh Alhaaji jiitu na ci Sëriñ Babacar wa innahu is arada allahu nashatana abana mi noorihi noorana bil alami te diggante récepteur bi ak prise bi prise bi ñu jële ko ci lumière u yàlla fas yéene ko nag branché ci adam alayhi lumière u yàlla bi bind lumière u yonent bi lumière u yonent bi war a branché lumière u mbindeef ci aadama sëriñ Babacar ni Cheikh Tijani ngeen di laaj ak màkkaamam yu rëy ci période boobu fan la ko ñu ni waaw mu ni mën a woon ca biir lumière u yonent te boobu branché bul aadama xutbul wujud di lazi abdu wilayatahu rabbi wa aadamu baynal maa iwati réalité boobu la ñoo tuddee réalité bahrul kanzi mooy lumière bi nga xam ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom la baawaan te bokkukaat kenn étincelle yi ca jóge di tàkk ca la mbindeef ya branché moo jur tey jii cëram ba ñoo tuddee kat nii moo tax muy l'intermédiaire entre le prophète de l'islam et les autres prophètes l'intermédiaire entre le prophète Mohammed paix et salut sur lui et les autres prophètes xatmiya bi di dellu ci l'intermédiaire entre na prophète et les êtres vivants suñu tuddee wali yu indi bii mu diriger ko ci xutbatul usna bii mu diriger ko ci xutbaaniyatul kanzam réalité am boobu nag la xel mënul dégg ci réalité am boobu la jaaxalee ñu bari parce que xam nga nit ñi ñi ci ëpp ci ñoom charia la ñu dégg. te li Cheikh Alhaji Umarul Futi yi di wax sax ni dañuy wax ni dañ ko dégg mais des nañu ko dégg